Euh, Al Amin Lo mi nga xam ne mooy jëwriñ bi nekk secretaire général gouvernement mu faram-fàcce leen liñ fi fekk ci poñ yooyu nga xam ne moom la wax léegi monsieur le ministre ñu ngi lay jox kàddu gi. jërëjëf euh, monsieur le premier ministre. juróomi weer ci ginnaaw peuple sénégalais. yenn nañu yan woon yan ñeneen mooy président Bassirou Diomaye Faye booy yanu nag baax na nga xam lin la yan lan la looloo tax projet bi ci boppam li ko tax a jóg mooy jub jubal jubbanti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 ak juróom-ñeenti téeméeri milliards francs CFA yoo xam ne ne kenn déclaré ko fu mu jóge mooy ne rek am na gaa engagement bu jëloon ak ñi nuy seqal àdduna muy bailleur de fonds yi Fonds monétaire international Banque mondiale ñoom dañ lay wax sa budget comme yow danga ngaa bor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 waruñoo am lu ñuy nëbb fonds monétaire bi gouvernement bi di ñëw fekk na mu am benn programme ak gouvernement du Sénégal programme bi 2023 ba 2026 la mu am ay charte yoo xam ne ne da ngeen ciy waxtaan ba juboo ci ñetti weer wu ne mu ñëw seet si la bu la seet see nga génneel ko li ma wax say bor sa budget sa déficit budgétaire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 gis nañ ne PSE bu doon jëmbatoon nan garab goo jëmbat fukki at war ngaa mën a commencé xanaa witt ci dara garab goo jëmbat fukki at war nga taa witt li am ba am mooy ne tëli yaa ngi fekk leneen ak leneen waaye yokkul koom-koomu réew mi yokkul koom-koomu réew mi mooy nit ñi yëguñu ko ci seen poos réew mi yëgu ko ci li nga xam ne ne waroon na fa mën a egg te PSE bi ñu koy tëral da ne woon ñaari mbir la juróomi yu njëkk yi gouvernement day dem lebi naam leb bu baax pour mën a defar réew mi juróomi at yi ci des nag gouvernement bi fexe bàyyi secteur privé mooy sunu homme d'affaires yi ñu fii comme yu bitim réew ñu ñoom ñoom liggéey yëf yi waaye li ñu gis mooy ne daanakam loolu tali yaa ngi fi rafet na lool hôpitaux yaa ngi fi ak kii waaye croissance moom amul lum ñu jural loo xam ne ne jar naa tudd e fan lan jëm lan lan war a def ba lii mu bara nekk rek nettali lii moo xew du régler dara lii réglé nag mooy fan lan war a jëm pour que lu mel nii lu amati waaye ñaareel ba tëm li tarxiis ba sori ñu delloo siwaat ko li muy commencé mooy lépp luy projet programme danañ ko xoolaat ba jël yi nga xam ne ne am na njariñ pour réew mi waaye amul njariñu keneen li ci tegu dépense de fonctionnement yi mooy ni nguur gi di dunde danañ ko saytu danañ ko yaxanal danañ fexe ba marché yi mu nekk lu leer danañ fexe ba jënd bi gouvernement bi di jënd ci loo xam ne ni mu ngi jëm ci ay service ñu fexe rek ba mu nekk loo xam ne ni dana aw yoon waaye surtout li jëm ci subvention bi kenn wump lu ne Sénégal li muy jaaye courant di ko jaaye essence ak gasoil gouvernement maa ngi ci teg alal ju bëree bëree bëree bëree deux mille vingt bu nu xoolee junni ak ñaari téeméeri milliards mille deux cent milliards gouvernement bi génnee na ko pour bañ a yokk njëg yi waaye loolu li nga xam ne ne danañ ko ci jojjante mooy fexe bu ñuy def ay subvention ñu bañ koo jox entreprise bu ko soxlawul bañ koo joxu ministre ndax ñoo ñu war nan mën a fayal seen bopp bañ koo jox sax entreprise yoo xam ne ni seen fii lan ne bu demee seen dividende dañ koy yóbbu waaye subvention yi metti na lool li ci tegu mooy fexe néew ji doole yi ñu gën leen a aar ci jàppale leen ci seen situation loolu tam mbir la moo xam ne danañ ci jëm lu fekkee ne mbiru nag wuti li ñuy wax alal premier ministre da koy faral di wax daa jàpp ne ndimbal na fekk loxol boroom bala nga woo nit ne ko lebal ma nanga fexe yow li nga xam ne ne war nga ko def nga def ko ko bare mooy ne danañ fexe ba ku daawul fay lempo fay lempo danañ fexe ba sénégalais yi mën a jóg dem fay seen l'impôt kenn du leen ko laaj te lim laaj rek mooy ne leadership la mooy wan ne ne la ngeen di fay fii laa ko def am na yaakaar ne buñ ko defee civisme fiscal dana ñëw ci sénégalais yi loolu daal moo doon fi nu fekk réew mi ndax day mbir moo xam ne ne leeral ko askan wi baax na ndax aw doxin bu soox bu ci soox amee jàngooran ca am daanaka am mel na ne dëkk bu nekkee ci sa tànk il faut booy dox danga soox ñun nag loolu lañu fekk fii waxuma benn dëkk waaye ay déggi déggi dégga digg moo ñoo nekk ci suñuy tànk ñu war ko sekki d'abord xaj ko bala ñoo dem léegi jéem a dox yóbbu réew mi fi ko président de la république bëgg a yóbbu ci ànd ceeg